waaw ndigal li mi ngi bàyyi ko mu Amadou Mountakha xalifa général des Mourides mu woon jëwriñu daara is bu tarixee Serigne Youssou Diop digal ko mu ànd ko ak Serigne Amsatou Mbacke mu Serigne Souhaïbou bu ndigal yi nag mooy tey jii ci bisu àllarba ji bu ñu xëyee li dale juróom-ñaari waxtu ba juróomi waxtu ci ngoon ñu yendoo njàngum xasida ci dëkk bu tedd bii di Touba tàmbalee ko ci jumaa ji ak li ko wër bu feesee ñu dem ci yeneen pénc yi daaru minam daaru xuddus ba ci euh, gédé ba mboolem pénc yi nga xamante ni moo nekk ci Touba ñi nga xamante ne dañuy jàng njàngum kenn ñiy jàng njàngum yëkkati ak kuréel yi ku sa njàng bu wér ñu dugal la ci liggéey boobu ngir bu ñu xëyee jàng ko yendoo ko te sellal ko loolu maanaam mooy ndigal li loolu bu dee ci wàllu sensibilisation ci biir plateau yi nga xam ne ñi ngi ko doon def benn bu ci nekk fàttaliwaale nañu loolu sàkku nañu itam kaddu ñi nga xamante ni ñooy wér gu yaram ba yaakaar naa plateau télévision bi ñu mujjee def euh, docteur Ndeye Maguette Diop te jiite district sanitaire bu Touba am na leeral yu yaatu yoo xamante ni def na ko lu bokkal ak sport yi nga xamante ni def nañ ko ci wàllu télévision yi ak site internet yi ngir fàttali loolu yamu ci itam matuwaay yëpp itam <coughs> yuy tax ñu mën ko def jël nañ ko yaakaar naa kër Serigne Touba gi bi ngay dugg daje nga ak ñoo xam ne dañu jox gel nga laal ci sa loxo gis ñu yor ay paquetu masque ngir ko amul masque ñu mën la ko jox kon loolu yaakaar naa euh, bu ñu ko sàmmonte gannaaw sëñu moom day sàmmonteek loolu digle ko it santaane ko fàttali nañ ko liñ ci mën te day mel ni bu ñu xoolee euh, globalement ñiy dugg ci biir day mel ni nit ñi bàyyi nañu xel mesure barrière kon alhamdulilah. waaw loolu moom xam naa ni euh, buñ ci àggee jàmm incha allah du mën a ñàkk ndax ku gis na ni daaw sëñ bi ci boppam rek lu bokkul ak sensibilisation bi mu ci def. Euh, taxawaloon na sax kuréel boo xamante ni seen xam-xam ay docteur ay épidémiologiste ay chercheurs yoo xamante ni seen xam jëm na ci loolu te day mel ni ñu ko saytoo woon bi ñu déposé seen rapport mboolem ñi nga xam ne ay scientifique lañu nangoo nañu rafetlu seen liggéey ak xereñu ni ñu ko doxalee loolu incha allah ñu ngi séntu ne bu yokkuwul ren incha allah du wàññi ni mu demee mooy jumaa ju mag yi ci lañ tàmbalee sëriñ Amsatu Mbàkke moom fa la nekk ak lenn ci waa ahlu xasida bu dee fii ci kër Serigne Touba gi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké fa la nekk ci dalu boppam bi am na fa kuréelu xasida yu koy jàngal ci ginnaaw am na fa kuréelu jàngkatu rajo si boole kooku ñi nga xamante ni ñooy durus ci wet gi am na ñoo xamante ni dañuy bind ay xasida Serigne Touba muy lim bu takku ci ay xasida yu ñuy bind mbindum loxo bindu ko maas ko defar ko soo demee buntu kër Serigne Fallou buntu kër Serigne Saliou diggëm a kër Serigne jullikaay it bi foofu fenn fu ci ne ci yooyu ba ci kër Sëriñ Abdoulahi borom dër bi fu barab la boo xamante ni ay kuréelu xasida ña fa ay kuréelu durus ña fa ak mbooloo mu takku boo demee daaru minnam noonu lañ ko defee daaru xuddus kër Sëriñ Coy bu loolu mooy penc yi gën a jege jumaa ji waaye boo demee bu fu gën a sori ba ay mbusoobe ba ay saam njaxate ba ay euh, saamum sëñ baara xuréeja ba ci isine euh, grave foofu fépp fu ku fi am pénc rek kilifa ya def nañ ko ba ci ngiraaneel ànd ak taalibe yi ngir ñu góorgóorlu ci ndigal ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha digle bi bernde yi moom borom bis bi moo ko digle woon ni mu diglee njàng mi moo digle woon ñu berndeel ñuy jàng njàng mi ba noppi itam tàmbalee ci boppam sax joxe ci lim bu takk mu mel na nag woote boobu dongo yi fekk si nañ ko ci tey moo xéewali yaakaar naa kenn mënu koo lim waañi li ma ci xam rek man ëpp jege na fanweer te yooyu mooy yi ma xam lu bokk la yeneen waañ yi nga xam ne ay murit ak i kilifa ñoo ko sos ci gox yi ñu nekk wala barab yi ñu nekk wala ay bokki taalibe ngir jàppalante ci te yaakaar naa tey ku jaar ci pénc bi du du café du du warga du lenn lu ñuy jëfandikoo euh, beñe yeeg yeneen yu ni mel kon day mel ni foo dem rek ni ko sëñ bi digle woon ngir ñu boole euh, durus bi ak bendeel ñi nga xam ne ñooy jànkari jël nañu matuwaay bi. waaw dañoo gisoon rek gannaaw xaside yi la sëñ bi woote te xaside yi wenn tur rek la waaye xaside lu nekk da cee ay tagg ay salaat olaane nabi mi ngi ci ay zikkar mi ngi ci ay tudd yàlla mu ngi ci ay diyaale di gëm ak sëñ beeg boroom kon li ci nekk ci ay thème ay Maodo waxaat bari na ñu gis ne euh, baax na muy occasion ñu waxtaanaale ci ngir ñi nga xamante ne ñoo jëm ci bis bi xam dayoo li leen sëñ bi woo ak yéen njëriñ lañ ci mën a jëlee waxtaanaale ci itam ci wàllu euh, melokaan yi ak teggin ak worma yi nga xam ne moom la sëñ bi bëgg ñu sàmmonteeg moom ci bis bi ngir moom li mu bëggal ñu mën a am melokaan wi tax ñu war ko mën a am.